di division investigation criminelle dem nañu jëli ko libération nañu moom Alioune Badara Dia ndar la ñu ko jàppee indi ko Ndakaaru am na it beneen waay bu ñu naan Bawar Dia di liggéey ca Sonatel moom it waa dig dem nañu jàppi ko ndax nee nañu numéro téléphone yi gaa ñu doon utiliser ba doon ci menacer ay kilifa moom Bawar Dia moo joxe pis nga de libération waaye Moustapha Niass ak ñoom àndal day ci assemblée waaw lañ leen di tuumaal daal mooy la waa digay biir Sonatel lañ dugg bi yoon laa la wax ah, waaw waaw Bawar Dia dañoo njort ne kan moo joxe numéro yii te waa ji Sonatel li liggéey de démb lañ ko jàpp Fatimata Traoré day mujj nañ koo bàyyi mu ñibbi Fatima Mbeng bu frapp jàppaat nañ ko lan moo tax ba Aline Badara Dia ñu daal di koy jàpp kon te ndar géej indi ko Ndakaaru ñaay jël joo libération ne division d'investigation criminelle mayul lenn gaay Ousmane Sonko yi ndax niki démb Bawar xam ne moo doon jox gaay numéro kilifa ko niki démb Fatimata ñu bàyyi ko Fatimata Mbeng nekk ci garde à